man moom ku ma woo ma ñëw ku ma woowul ma ñëw. waaw waaw. salaamaaleykum. Jibi Seye. Eh. bandi. bandi bandi lu. ay bandi nanu. yow ay bandi nanu. yow everything like the pee hole. the high and fire like the pee hole. ay bandi nanu yow ba may xool. yow sàkk bis bu yàlla sàkk bu ni a tiis ay mi su jaay animatrice ndax xaalis ni ñoo ko taw kii tuddee ko iblis ngalla ni tal duma li ma wax delol li bo gëm na dem timis ta bu seen jën lëpis te tini jël ta ma ca am ma ay bandi nenu yeah ay bandi MC Tafa l'homme au double disque d'or yow nga ne ay bandi lanu yeah lu xaalis bi monsieur le maire mi dafa mën a jaxase kër gi xam na ni man laaluma trois cent mille yi ay bandi nanu ay bandi ma jëluma trois cent mille Yeah. ay bëri ñun. yaa obligé suuf si elle est sur le destin résultat si la chasse suuf si elle est ouvrière. si tu connais tes limites et que tu trouves comme la à la responsable pour réussir tout une vie. yaa. ji bi ñu ngi ci 31 presque décembre. xam nga décembre weeru mbëggeel la. daa booy dama doon jëli sama cadeau de Noël. bi daa booy. léegi na xamal la mooy problème bi. dama doon jël arrêté instrumental bii di nelaw loolu. dama ne tàccu leen bu baax xanaa affaire bi neexul gars yi gars affaire bu neexee nañ ko dëggal tàccu bu baax mais jibi mais Touré yow ku yàpp rappeur yi nga yow. ci lan. yow ku yàpp rappeur yi nga. bis bu toll nii. nga waroon def sa benn ngandam dofu jingal waaw. nga def sa petit xaftaan ak sa koppati. waaw Touré da ngay tooñ. laal tuuti mel ne Nigérien nii. <laughs> jibi ah, doy na waar fi leen juddoo fi leen màggee te ñu ci bari sax xoola seen génte non Youssou Ndour ko woy lu leer laa la wax. mais affaire bi culture la rek da rap affaire de science la xam nga sànni ay bambu fii xam nga sànni fii expliqué dellu si mais du tee sénégalais ngay doon ah. mais problème bi du question sénégalais. yow kay laaj rappeur ku ko xam ku ne xam ni rappeur yi bu jëkk bu daan peser soixante dix kilos ku ci solo ba génn peser une tonne. ah pare waaw. ndax dana takk fan weeri seenu weñ. Ah. sol jëngal boo xamante ni boo ko xoojee ci géej gi. waaw mu jeexal ko. ay ngan di dofu semis. Eh, eh, eh, yow moom xaw ma dangay geer xaw ma lu xew loo wax baax na li yàllay jàmm loo wax baax na ma ni nga wàññi nga wàññi gars yi nee nañu sa jiin bi nga wax dafa ngande wàññi ko dafa ngande sax sa chemise mais jamonoy jëngal wa wàññi ko taaw dekkil rab yow fekke woo loolu yow taaw teen bi waaw wàññi diin bi ngan na waa Touré ay bul ma jooyloo waaw ci biir kër gi. loolu na daal di Bibson moo ko jeexal ba mu jeex tàkk. waaw kon gars yi jërëjëf kontaan nañu. jërëjëf dañu ñëwoon pour jàppale Ngaaka muy suñu xarit. waaw di vraiment artiste boo xam ne artiste bu ouvert la. dëgg la. Ngaaka il est magnifique. déggal lii yow. il est sincère. déggal lii il est correct il est il est et puis Ngaaka mooy Ngaaka il est sans effet secondaire. ok. aujourd'hui nag on se dédicace par les avocats. nga ni yow les maîtres barons. aujourd'hui pour les jours de les maîtres barons avocats il y sa beaucoup des avocats ici mais je kon Touré da bëgg wax rangée bi yëpp ay avocats lañu. waaw ñii ay ex détenus lañu. waaw. ñii mooy ñi nga xam ñooy les accusés. waaw waaw waaw ñi la guddi gi demee ku bokkul yaa nga ne sama jigéen di la bëggee sama xarit. ndaanaan bu baax bi merci. 08 01 994 def ci li ci mën bi déw di gën di tàkk ci li ci mën bi déw di maam ne ma lu picc rëy rëy laa fa koy naawal sa bisu ngénte sax ñu bëri daan ci sàkku ndawal nit yaa ngi ñaan duñu am nit sell ci xel ak xol te buy solu it la neen lay gaam ñaata xelu nit la ñu boob nit yaa ngi tee ñaata xeetu nit la def doom nit yaa ngi tee nit ñi tee duñ mës a suñu suñuy dignité luñ dignité suñuy soxla buñ ko ciy tee xel yi ñu waroon teg ci kaas yi moo ñu teree ndekki li néew lu ñu teg ci bànkaas yi moo ñu teree dekki nit a ngi dem di tëdd di fanaan fi ay di frek nit jël li taaral matt di bay bàkk prek ñaata nit ñaata monde ñaata time ñaata cause ñaata con ñaata use ñaata monde déet gëm xippi rek fëgg dëndam ne lum gëm amul gëm-gëm du faatu ne déet amul lum nangul gëm nit ka see sañ a jaay cëram jënde ko sëriñam gone yi jaay garabu kër gi maam jënde ko këriñam te nit du ñàkk dara fekk itam jeexul am na milliardaires yu toog seen kër te seen xol yi neexul wallaay góor ñii duñ saw ñii duñ tëdd ñii duñ nelaw ñii duñ law am na milliardaires yoo xam duñu puub duñ saw dañuy tim sax seeni jabar duñ ko mënul tus dañuy fay ñu yëgal seen kaw moo ñu mbedd bi puus ñun dañoo jommi jaaxle jeewal ñi ngi tëdd sa géem siisu soxor saa su sësee day dagg sa géem di tegi tray ay at te musul am pot nit jóg first time top rek gagné jackpot nit am na liggéey mënu liggéey te day deew ak sot nit am liggéey bu mënu liggéey liggéeyu ndeyam daal di ñëw sot bu dul woon sama liggéeyu ndey dee naa bu yàgg mais bu dul woon li faatu ngay sey kon du tàgg sama liggéeyu nday dee naa bu yàgg waaye bu dul woon ni Fatou Gueye see kon picc du tàgg mer la ma dagg sa doom a màgg foo tourné gauche droite ñu tee la di wax ndax sa doom di tàgg boo yi na ma king loo génne tay tay ñu mun ko tay tay foo show ne day fay ñu dugg fa boy ne ma kii loo génne tay tay ñu mut ko tay tay foo show ne day fay ñu dugg fa fay kay sama liggéeyu ndey dee naa bu yàgg waaye bu dul woon li faatu ngay see kon ku ci du tàgg mer la joxoñ ma tàgg sa doom ma màgg foo tourné gauche droite ñu téye la di wax ndax sa doom di tàgg boo ma kiiñ foo génn tay tay ñu mun ko tay tay loo génn tay fay ñu dugg fa fay kay this love is true dafa mujj dem ba shut my mind dañ ma bëgg dëgg ba seen bëgg mujjee original mais point final seen xër ci man ko sàggane kay da leen jaral xuloo xeex ba ciy sàggante tey hey kay boo yi dañuy joxe lépp seey ñaata concert la ñuy nekk du ma fa nekk ñuy kees ñaata stade la ñuy jël ngaa ko kese Thiès Ziguinchor am nañ cër ci man Saint-Louis Louga Kaolack Fatick am nañ cër ci man Matam Tamba Bakel Fouta Richard toll ni man laajal Balla gi est-ce que Guédiawaye am na ni man chaque semaine chaque week-end ngay dégg ngaa ko fii ngaa ko fee show bu leen ne ngaa ko sell bu duñ ko mës ka fee lu gën jafe mooy fu ñu woote mu fees dell policiers yi tel ñi may bëggee ci biir jeel kon buñ ma taxaloon ay monon jow sibul bu dul woon meer buñ ma tëjee ay at sax coow jibul ndax dëggu du bañ si baatin bëggee naa leen meen ndax dëggu du fen si zaay yëgee naa leen meen seen xër ci man dafa mujjee dem ba fay ma een eh. naa leen bàyyil xaadim rasool rek fa yàl ma leen yëpp a kiiñ loo génne tay tay ñu muut ko tay tay foo show ne day fay ñu dugg fa fay